asalaamaaleykum mbokk yi ngi si toolu ki nga xamante bu ñu naan expliqué loolu gerte gi ñu tey mooy gis nañ jafe-jafe bu mag a mag parce que gerte warta heure bi nañ ko si gerte yu bari bari cette année lii nag am yu bari yaakaar lu ko andi mais ñi nga xamante seen xam-xam màcc na si def nañ ay peut-être résultat yi dina ñëw inshallah allah dinañ feeñ ci kanam ñu xam li nga xamanteni mo waral li ren newetu ren bi parce que bu ngeen xolé gerté heure yi boku buddi buddiwaat di nga am sax au moins lo ci mëna yeey mais liñ ci gerté gi moy gerté gi meñul amul sax dom lu ci bari amul dom, boo xol dom yi ci am ni wul kon fi ak fin campagne presque bientôt campagne bi taxaw kon donc jafe-jafe lu bu maga mag mom lañ seetlu ci gerté ren kon euh, ñuy ñaan aussi tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne ku xam gerte xam ne vraiment bokk na ci li nga xamante ni baykat bi yaakaaram la lii nag dafa indi loo xamante ni problème la ñu feeñ mu feeñ ren kon xam naa nañ ci bàyyi xel bu baax baax incha allah. léegi en tant que technicien en tant que technicien yow nan nga xalaat yow euh, gouvernement bi yan mesures nga xalaat war na ko mën jël pour mën a waajal jiwu déwén. parce que ba euh, gette mom buñ ko bayul euh, day xawa day xawa doy wat ci Sénégal waaw gaay yeb ñi ngi ñu bari ñi ngi wax né conséquences bi bokku bokku na ci jiw bi comme niñ ko waxé euh yaakaar na nak étude yi ñun xam nga tay dafa am ño xam seen xam-xam màcc né souf ci ñi né souf ci la ñii ne euh, fumier am na ño xam ñam dem jiw bi la mais loolu dañ ko bayé ñi nga xamanteni seen xam-xam màcc na ci parce que tamit ministère bi dafa bari ay branche yo xamanteni ñu ngi fi am ño xamanteni INP e comme ñu démé ni INP e ñom seen geussu yépp si wàllum suuf la yaakaar ne def nañ ci mission pour xol xam xool ba xam yeen jafé jafé lañ ci am benen bi aussi tamit bu may wax euh en tant que technicien man selon moi nañu renouveler la capitale semencier manam tay semence bi nañu def tout ba xamanteni dañu am semence de qualité parce que tay bu fekkee ni condition yi brewirina muy taw nawet bi ko xam xam né taw na mais tamit bu fekkee ni amo jiwu bu baax rek yaakaar na jafé jafé la bu maga maga maga kon donc li may wax rek mooy nañu jéem a xool nan la ñu def ba nga xamante ni lii tey ji dinañ ko mun a saafara jafe-jafe la boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy dund fu mu tool bi en tant que technicien li ma si xalaat mooy ñu jéema xool des semences de bonne qualité parce que semence bi dafa tourné ba tourné ba sonn waaw vraiment dafa dafa pare te ku xam semence xam ne bu fekkee ne am na trois ans yoo xamante ni nga am pré base am base bu normal am R1 am r li ci des yaakaar naa ne nekkatul semence te semence bi boo xoolee depuis suñu maam yi la boobu. lii boo xoolee 28 206 bi moom la gën a daal muy copp bi am na ñoo xamante ni jafe-jafe boobu noonu la ñuy dund fu mu toll nii presque tool yëpp boo demee zone boo dem rek jafe-jafe boobu moo si nekk kon état war na ci bàyyi xel bu baax. man nag euh, dama dañ dañ tuumaal fii parce que dañ def suufu Sénégal bi actuellement surtout dans le bassin arachidier maam du ko déparé Saloum ba Casamance. Mm-hmm. suuf bi dafa bëri nématode. Mm-hmm. ñu nématode bi tam bokk na ci lu causé nga ciy wax. waaw loolu comme ni ma la ko waxee woon rek xam nga am na jafe-jafe yu bëri yoo xam ne am na loo xamante ni tey ñun suñ xam-xam màccu si am na loo xamante ni dañ koy bàyyee ñi nga xamante ni ñoom ñooy def INP ñoom ñoo xam ñoo xam li nga xamante ni moom mooy gàllankoor ñoom def nañ si ay gëstu gis nañ ne am na ay nématode gis nañ tam am na yeneen euh, ay bactéries yoo xamante ay genre sax yoo xam ne dafay jàpp racine bi di ko lekk yooyu tam gis nañ ko si dégg naa kon donc ñun luñ mën a jàpp rek ñoom loolu lañ mën a jàpp ne kon suuf si yaakaar naa am na ay nématode nématode nag boo ko déggee aussi tam suuf si dafa am jafe-jafe maanaam tey suuf si li nga xamante ni moom la waroon am comme par exemple fumier boobu noonu ngay wax fumier bi nan lañ ko war a mën a defee ba nga xamante ni jafe-jafe yooyu du amati loolu dooleel waat li nga xamante ni mooy suuf si jëm ñu lijjantil aussi tam semence boo xam ne semence de qualité la loolu aussi baax na si parce que ren ku xool gerte gi xam ne ren yaakaar bi yaakaar amul ci nawet ren de ci tuut ci gerte gi parce que gerte gu toll ba heure bi mënoo fi gis doom yu bari rek xamal ne baykat bi amatul yaakaar ci mbayu mbenn mi gerte gis nañ ko fi parce que boo rombee tool yi ñu romb yëpp boo xoolee lii la ñuy jox kon donc jafe-jafe la boo xamante ni vraiment dañu xool nuñ ko gaaw saafara daal xam naa newetu ren bi dina yéeme dëgg dëgg dëgg ci li nga xamante ni mooy production gerte bi yaakaaruñ ci ay rendement yoo xam ne ay rendement record la.